kon daaneel na leen gars yi ñu dem Cheikh Super Diamono ak Brise de Mer ñooy bëri combat spécial bi mais Prince laay woo ak Tubaabu Joor numéro 2 ñu dem. am na solo tubaab kaay nii maa ngi lay siyaare. maa la fay tubaab tey teel nga ñëw si bi de. respecté nga heure bi de. waaw mooy yoon ko kii contrat lañ koy respecté. Uh-huh. ma sant yàlla julli si nit sant sama ñaari waajur ah. mm-hmm. sant sama yaay lu bëree bëri bëri. day ci man quoi. Mm-hmm. waaw di sant waa Tivaouane Peulh yëpp nag. Mm-hmm. sant ñu ma àndal. sant sama coach Segg sant chauffeur bi Ndobari di sant ñoom. ñoom guy gu ndaw sant gars yi mu àndal daal suuf yëpp. macha allah mhm. <coughs> maa lay fay Modou Mbaye. Mhm. ginnaaw ba ma sant yàlla. maa ngi nuyu mbooloo fi teew yëpp. Mhm. gis sa tur si sant. waaw di nuyu waa Pikine bu baax a baax Pikine bu ma jógee. rawatina ginnaaw bu may yeewoo. maa leen nuyu bu baax baax. xamante ngeen yéen ñaar xam nga ko. Ah, wax na ko si biir ay waxam de am na sori yu mujjee def. mu ne xam na la. mu ne xam na ma bu baax. tubaab xam nga ko. non man xaw ma ko de la ko waxee yow. moo. te <laughs> moom moo ne sama premier combat moom moo bëre grand combat bi. waaw te loolu bàyyi ma si woon sa xel. non non waxal lu leer. mënul bëri sama premier combat grand combat mu bari ci petit combat ne loolu xamul si dara loolu ay wax la rek. barki Serigne Bamba yàlla moo ma tiim loolu fàtte woon naa ko sax. waaw mais dañuy ñaan yàlla defal ñu jàmm rek ba le 19. di ñaan yàlla defal ma mais ko petit combat après ñëw ba bëreeg moom grand combat. booy bii daa war a bëreeg moom. garab si kaw lay fekkante. Mhm. man na maa yónni yaa xam ne ma xale bu ndaw laa. du loolu Modou ñun dañoo ñun dañoo ës rek. waaye mhm. maguñu ko. te an bël amul mbër bu mag quoi mun naa ne ñun nëbbatuñu ci kenn laqatuñu si kenn. Mm-hmm. man mii mun naa leen maa fay presque tëdd film. Mm-hmm. kon ñun ay jàmbaar lañ booy taan bëri ay jàmbaar lañ. xam nga ko moom. seetaan nga ay combat yu mujjee mu bëree yëpp façon bi muy bëree. xam naa ko jàmbaar la man jàmbaar laa jël ndax man jàmbaar laa. loo nar ci moom jàmbaar loo nar ci moom. du ko daan ko. waaw Modou Mbaye xam na rek ni ñuy wër la ngay wax loola neex dafa yomb mais barki maam Serap Fall bu ñu tëjee diggu géew gi maa kii dina rëcc lu mu doon jëlee avance bi man di woowaa temple kii su ma. non balaa ngay woote nee na non <laughs> non moom moo ko wax. nee na ba kaay nii kaay la ñuy waat ak ah, kaay la ñuy nii. li nga doon jëlee avance am. loolu ay wax la rek di gërëm waa Tivaouane saa waay kii nee bu arbitre sifflé waa Tivaouane dina ñëw mais wuyu ñu dañuy signature ñëwuñu fi pour gërëm waa Tivaouane Peulh kii. waaw ba Zoura Mawone Mbaye. li gars wax rek. mi bañ a wax ak yow de lan la Mawone Mbaye kii day xaar man dañ maa yónnee yàqante ma xale bu ndaw laa ay nit ñoo topp sama ginnaaw. su ñu leen a yàqamte la tamit baaraas bu nekk si yoon da lay duma wàññeeku la nga dem ñibbi. aw ma kii bu doon gaynde sax dama koy fër romb. doo dafa dara topp sama ginnaaw luy topp sama ginnaaw amoo woon combat yaa ngi doog am combat. mosoo am combat comme saa su na taxaw si digg bi ñu bëree ko foofu na bàyyi si saako yi muy laaxatu. ah ci làng ba lay dem. mos ñu ma jox avertissement. taxawal si digg bi. Modou Mbaye. kii hmm. bu fekkee lu muy wax ne dëgg la si moom. waaw combat bi mooy daax sax grand combat bi. du ma sàqi man mosuma sàq sama combat te du ma mos a lépp dina leer Modou mbay di ñaan yàlla defal ma jàmm. Hmm. may ma ndam. di nuyu waale Siteu bu baax a baax. Hmm. di nuyu Abu Seck di nuyu Papi sama mag. Hmm. lu ne la may defal. di nuyu kër gu may yeewoo bu baax a baax sama maam maam Diop. maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. di nuyu sama nijaay nekk si kër gi yëpp. ak sama yumpaañ yi. waaw di nuy sama booy yi ma fi àndal métti na trop. signature bu may ñëw sax duma leen ko bugg a wax ndax dama leen bañ a sonal. Mhm. mais ñëw nañ fi en masse xam ma rek ma bàyyi leen si mbedd bi maa leen masawu si lool bu baax a baax. Mhm. waaw du nuyuwaat waa Pikine ndax Modou mbay ñun bu ñuy génn daa am luy toog suñu ginnaaw gars dañoo war a génn diñ jàppale autorité Pikine yi di jël nuyo bi di ko teg si kaw président ASC Pikine. Mhm. Mortala. waaw nga waxal ma gars ñu jàpp si bu baax a baax jàppale ma sama làmb. ndax sama làmb barki day métti torop nit mënu ma jëndal bologu ticket. Mm-hmm. lépp gars yi ñoo koy jaayante te gis nga tribune bi nu muy mel. Mm-hmm. te buñ ma jëndaloon ticket mooy loolu. Mm-hmm. mbëri yu mag yi di bëri si journée bi Siteu rek laa siy jaayanteel ay nit. <laughs> mais amul keneen koo xam ne da nga da ngay indi si stade lu ma dul indi. ndeysaan waaw mais na si gars yi jàppaat rek. waaw di ñaan yàlla may ma ndam si tubaabu joor numéro 2 bu baax a baax. bu tubaabu woote. waaw di woo waa Tivaouane la. kaay nii tuuti waaye kaay nii. di woo waa Tivaouane ndax ñoom laa am. waaw di woo tamit waa quartier Baye Fall cànt la nag di woo ay yëpp ma limee rek damay juum. Mhm. ñëpp si lañ bokk. Mhm. bu ma jógee foofu nag di woo autorité yi ku ci mel ni Moussa le maire Papis ak Bas ak Ifa. Mhm. ak yeneen gars yëpp ku ci déggul sa bi tamit jàpp ci xam ne cànt la rek. ñëpp nañ ci ñëw jàpp. su ma jógee foofu foog la seere ma xe simnaam may gën maanu simnaam mbin maa samba kanji sares simnaa ñaxar ñaxar tout ma xe simnaa den ret bana yëngale ret boo maanaam euh, jaxaw jaxaw siin su ma jógee jaxaw dugg si ndox bi maa ngi sant ngajoor bu baax a baax a baax ngajoor maa ngi sant ngajoor bu baax a baax. jaajëf di leen gërëm macha allah ñëpp. waaw man bay bàyyi ma sant ba pare quoi. waaw sant gaal gaal lekk booy bu wax. waaw bu fa jógee di sant sama yaay. di sant sama yaay bu baax a baax di sant ñi ànd ak man di sant sama sama équipe bu ndaw mi nekk sama koñ. dégg di sant ñëpp. bàyyi koog jaxatom bi mu mel ni rosekat nii di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw mun mbay kontaan naa ci yaw Modou da waaw waaw na doy na waaw Modou may jàppale te yàlla tax rek waaw waaw di nuyuwaat sunu waa écrit bu baax rawatina sama père père Bongo Modou ah. booy bee de miinu ko ah seetaan naa ko nag jàmm mais booy bii dernier combat am ñoo ko reporté ndo booy bu ah bon waaw ah. non booy bi feneen laa ko seetaan. man maa ngi sant waay benn kii maa ñaa di sant ñaa bu baax ñaa bu kàddu gi. yow yow bàyyi ma yow. ñaa ñaa koy sant bu baax a baax. waaw di sant waa diaspora bi. waaw di masawu Ama Baldé si làmbam mu jugee. Mm. ñun ñëpp ay Pikinois lañ barki sëñ Bamba làmb ji